mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñun ci rajo Rewmi FM nuñ koy eh, amalee dimanche bu jot tey ñu am ci yéene amaat mbégte dalal ci ki nga xam ni moom moo di Djibril Thiaw nekk maire bu Refane monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci invitation bi. Euh, jërëjëf Mbemba maa ngi leen di nuyu di nuyu ñu ñuy déglu yëpp sur Rewmi FM di la sant ci invitation bi ñu invité pour may ñu opportunité aussi ñu wax ci actualité ci réew mi maa ngi nag particulièrement suñu kilifa diine yi uh-huh. le président de la république nuyu euh, askanu Bawol uh-huh. askanu région de Diourbel askanu département de Bambey mais aussi askanu commune bu Réfane bi nga xam ne yàlla dogal na ma nekk fa maire am na solo monsieur le maire alors tey dañ koy dooree situation inondation dëkk bi ak plan Orsec bi nga xam ni gouvernement bi euh, daal na koy déclenché déclenché waat mais tey naka nga gisee jafe-jafe yi nga xam ni askan wi Sénégal rawatina Dakar ñu ngi koy dund. waaw jërëjëf euh, je pense que askanu Dakar particulièrement Dakar le département parce que paraît que taw bi yeggul ay un dans la banlieue Kër Massar yooyu euh, situation bu difficile la. man gis naa sama benn ci sama personnel sama agent yi am na soog koo xam ne cinq kër la yegg si parce que dafa jaaroon ville malheureusement bi muy ñëw taw fekk cinq kër la yegg si bureau daa ñëw rek enchaîné euh, minuit déjà mu ngi woon booru si sest war a dem Kër Massar donc loolu seet c'est extrêmement difficile on a ndox mu fépp ah. lu lu metti la ñu koy metti lu di bokk ak askan wi metti bi Euh, mais li may ñaan rek mooy euh, ñu ñu boole ci muñ parce que dogalu yàlla aussi lu am la lii dama jàpp na dogalu yàlla la parce que tamit 126 millimètres en 4 heures de temps te loolu mooy nattu météo à 16 heures boo ko def leneen li ci dolli ko entre 16 heure ak guddi bi donc euh, lu toll noonu si ndox bu wàccee ci une petite comme Dakar mën na mën na indi jafe-jafe Eh, leen rek lay ñaan bu ñu politiser naqaru askan yi comment. ni ñu ko bu ñu ko politiser boo déggee ma wax ko mooy ñu bëggee jël nit ñi gëmloo leen ni lii c'est la faute à une personne réew yi ëpp doole ci àdduna sax yu ëpp doole ci àdduna catastrophe naturelle yu deme ni dafay am la preuve mooy c'est première fois ñun ñu gis lii ay oto yuy tëmb. mais c'est première fois ñu gis ko à l'œil comme sax ci télé lañ ko daan gis te général bu ñu ko daan gis ci télé dañuy wax États-Unis ay Floride ay et cetera et donc ay réew yoo xam ne ñoo ëpp doole foofu mais quelquefois quand quand Dame Nature sa déchaîne kenn mënu ko téye donc lii nañu jàpp ne ci dogalu yàlla yëla bokk maintenant du tere aussi ñu ñaax autorité yi ñu gaaw génn taxaw askan wi. mooy du plan ORSEC très bien euh, le président de la république déclenché na plan ORSEC ministre de l' intérieur mu ngi si et probablement tout le gouvernement ak tous les services de l' état ñu ci jàpp mais li ma bëgg mooy ñu boole ci farlu parce que nag askan wi sonn nañu c'est c'est très très difficile te yu demee nii euh, boo boo toogee par exemple bëgg a dem mënoo dem courant coupé boole si yooyu mën na indi ay ay ay confusion donc euh, service de l'état yi état euh, les maires aussi nañu génn les maires nañu génn parce que rek mënuñu jël tout ñu rejeté ko sur l' état central maire yi nga xam ne seen dëkk am na jafe-jafe yooyu ñoom aussi nañu xool lañ lan lañ ciy jàppee même si xëy na bëriwuñu doole trop. ñoom moto pompe lañ am ak. Euh, waaw mais mais nañ génn moto moto pompe yooyu parce que li am na euh, ku ko wax démb si si si si société civile nee na daaw heure bi bi affaire yi kii gars yi nekkoon opposition te nekk ay maire tey dañu gaaw génn photo ci ndox mi génne et cetera. tey kenn déggu leen te loolu wax quelqu'un de la société civile moo ko wax c'est pas un politique qui l'a dit donc loolu aussi lu doy waar la ça veut dire que Sénégal de plus en plus ni ñuy defu politique machiavélisme bi populisme bi dafa nekk trop trop daaw tu étais dans l'opposition bëgg a nekk maire sa dëkk inondé mu wóor la ne mairie bi amul solution nga génn di photo di di di vidéo di xas maire ba tey nga yàlla dogal nga nekk maire lii am génnoo gisuñu la dégguñu la loolu aussi vraiment askan wi nañuy jàngat bu baax a baax Sénégal ak àdduna toll na foo xam ne euh, il faut que de plus en plus nit ñi di xalaatal seen bopp mais ñi nga xam ne dañuy ñëw rek pousse askan wi ne leen waxtu leen xalaat bàyyi nañu leen di xalaatal di leen waxal lu nu wax noonu la yéen bu leen xalaatati la ni ku leen bëgg a terroriser kooku kooku askan boobu ñoo war a taxaw bañ ko parce que li quand euh, quand quelqu'un de la société civile koo xam ne tout le monde reconnaît qu'il est neutre tout le monde quelquefois même on dit que il est tellement ay critique am dafa dafa dëgër quand celui-là cons mooy constaté tey. plan sec boo ko déclenché benn ñaar xëy na naam boo mënu indi solution bi yëpp. war a war nga indi saafara ba polémique bi juddu na ci 766 milliards plan décennal mais yooyu yëpp itam gouvernement bi war nañu ko leeral. non mais leer na même ba euh, ku xam travaux publics. ku xam li génie civil mais 700 milliards ci génie civil mais ba pare dañ koy gas nga suul ko donc loolu nga xam ne dañ koy gis à l'œil nu ça coûte excessivement di c'est du béton di fer du ciment ba pare ak ay ay ay ay dosage yoo xam ne c'est du du dosage du def brique donc quelquefois aussi nit ñi nañuy am tuuti ak sincérité euh, créé woon nañu fii benn enquête parlementaire mais y de des dépos des députés de l'opposition conclusion yi mais ñëpp xam nañu ko donc 700 milliards yooyu nañu xam ne def nañu ko ci la preuve mooy euh, am nay temps inondation ay Grand Yoff nga ko doon dégg ay Pikine mais daaw Kër Massar nga ko dégg Kër Massar nga ko dégg donc euh, te le problème de Kër Massar bu ñu ko réglé dans quelques années boo moytul inondation boobu nga dégg ko ay ay ay Mbambilor rek ay voilà ay c'est ça c'est-à-dire euh, fi nit ñiy dem di dëkk loolu aussi c'est un mal sénégalais uh-huh. dañu fay dem dëkk sans assainissement bu ñu demee ba ba population bi bëri fa uh-huh. euh, surface ndox suuf si doon absorber ndox bi wàññeeku bu baax uh-huh. bâtiment yi di déverser seen ndox ci mbedd bi. mu mu ñu commencé am problème. fekk la problème de Kër Massar a été réglé parce que coow li bari na defar nañu canalisation foofu c'est ok. donc ça se déplace ça se déplace peut li ñu war a def mooy te bu boobaa aussi day gën a jafeel. dëkk parce que Sénégal fi mu toll nii ak ni nit ñi soxlaa kër. boo nee désormais balaa ñuy defati benn lotissement nañu def assainissement bu boobaa day gën a jafeel ni nit ñi amee kër. loolu beneen problème la c'est encore plus grave c'est encore parce que bu boobaa da ngay gis borom kër boo xam ne waroon na mën a góorgóorlu boo am këru million millions million millions 17 millions ñu contraindre ko à la location ah. sa vie parce que dañu exige ne balaa ngay defati balaa ñu defati lotissement day am assainissement da ngay drainer ndox bi et cetera de sorte que loolu yëpp boo ko defee parcelle bi rek da lay bëgg a dikkee la kër ga doon dikkee 15 millions yi nga xam ne moom la góorgóorlu bu ndaw bi am pour waroon ci mën jën terrain tabax ca dugg ci ak njabootam ah. donc yooyu aussi beneen beneen jafe la ah. pour man aujourd'hui la solution. mooy ñëpp ànd ak daal. ñu génne politique politicienne ci pénc mi. <laughs> teg ko fële. di waxante dëgg. Euh, état ñu taxawu ko ah. mu def ba fa kattanam yem ba fa kattanam yem li ci des nag citoyenneté ko yeggale ñoo ñoo ngi ci koñ bi doo dëkk ci koñ bi bu ko nekk ma mënee indi sa tuut bu ko nekk mënee indi sa doole dolli ko si pour que ñu defar ab regard fale pour que la fatoon ñu fatar ci ko ah. ainsi de suite parce que am à un moment donné aussi aw askan bu ñu bëgg a avancer day def lu mu war a def mais citoyen aussi gunge ko par des actions ñu génn tout ce qui est sànni ko génne tout ce qui sabotage sànni ko yéene wante jàmm mais on dirait que quelquefois Sénégal day ñu taxaw fële di bëgg di ŋaañ non seulement di ŋaañ mais boo déggee ni ñuy waxee da ngay naa ñii est-ce que bëgguñu réew mi tàkk ñii est-ce que réew mi xëy suux ñii est bëgg nañu réew mi am jàmm yooyu nañ ko génn teg ko fële ci problème Sénégal mooy problème Sénégal loolu nag askan wi ñooñu ci ñooñu ci mën a dimbali mhm. parce que politiciens yi moom bu ñu leen toppee réew mi tàgg <laughs> parce que ki fi nekk intérêt lay xool bëgg fee nekk éternellement ki fi nekkul mhm. bëgg ne kii na fi jóge par léegi nag askan wi nga xam ne ñoo ëpp parce que ñun politiciens yi bëriwuñu ñoo war a te ñoo bëri ñun politiciens yi bëri wuñu matuñu 10 pour cent léegi 90 pour cent yi ci des nañ ñu imposer seen volonté uh-huh. seen volonté mooy dëgg seen volonté mooy liggéey uh-huh. seen volonté mooy pénc mi am jàmm seen volonté mooy ah, réew mi avancé nañ ñu ko imposer mais bu ñuy seetaan politiciens yi euh, ñu leen di gëm gëmloo ne comme li ma wax sànq ñoom waratuñu sax xalaat bokkatuñu ci pénc mi uh-huh. dañu war di xalaat à leur place di def à leur place di wax à leur place loolu sax pose problème voilà waaw monsieur le maire euh, la ñuy dalal ci émission maire bu Refane gox bu nekk itam am na ay réalité ndax li ngay xam ne ñu ngi koy wax ci wàllum taw bi météo wax na ko dina taw atom ren ji ndax yow ca commune ba jël nga les euh, en fait jël les devant euh, non parce que en réalité ñun foofu wax dëgg yàlla farataal ñu di am problème mu ndox yooyu parce que c'est le sol joor euh, généralement te comme densité bi nu mu amee fii à Dakar aussi ameegul noonu foofu généralement mën na taw mën na taa mais généralement toujours du bon waaw euh, man par exemple boo demee sama kër reefaan bu tawee day fees dell ak ndox kër gi day fees naan 30 minutes bu tawee def 30 minutes doo fi oto gis ndox lépp suuf si naan na ko ensuite ñun ñun wax dëgg yàlla mm. soxla <laughs> voilà dañu soxla ndox ñun moom lu mu taw rek baax na <laughs> waaw sant yàlla ci diwaan bi itam tow bi am na solo dafay dimbali baykat yi waaye yàq-yàqu itam kenn du ko ñaan parce que léeg-léeg itam euh, comme ni àdduna day dox ni ñu koy waxee euh, ci kanam itam am na loo xam ne war nga ko mën a planifier foofu oui effectivement moo tax ñun euh, ñun suñu suñu lotissement vraiment nous faisons tout pour que mu nekk lotissement boo xam ne day mucc ay day mucc ayib franchement kooku on y veille on y veille ba ensuite euh, désormais bi ñëwee ba léegi lotissement bu ñu def dañuy bàyyi ay place publique yu yaatu yoo xam ne ëllëg xëy na mën na sax nekk Euh, foo xam ne ndox bi bu bu ruisselé mën na fa dem toog quelques jours quelques heures pour dem. Euh, donc tout ce que nous pouvons faire vraiment en tant que mairie boo xam ne nous n'avons pas trop de moyens mooy yu veiller ci lotissement bi veiller ci espace yi veiller ci aussi les rues mu nekk vraiment des rues assez larges bañ parce que boo Dakar léegi ay gars yi bu ñuy dans la banlieue ay rues ay de huit mètres lañ lay bàyyee yu kenn xamul ñun moom nous laissons de grandes rues ensuite suñu yi aussi. au moins day dem. est-ce que moo euh, ak dëkkuwaay yi. c'est ça c'est-à-dire quelquefois aussi dëkkuwaay il faut mu il faut mu il faut mu. yaatu. bu fekkee ni da nga jël un un hectare. plus de soixante dix ak quatre vingt pour cent hectare boobu nekk une surface bâtie. 30 pour cent yi rek nekk une surface non bâtie pour absorber ndox bi ça pose problème chez nous nag boo mooy hmm. la surface bâtie mënul romb 30 à 40 pour cent donc les soixante soixante dix pour cent. c'est des surfaces non bâties yoo xam ne du du am perron du am tëli du am seen solo sol boo xam ne day day naan ndox mais Dakar seen na ma yàlla baal c'est c'est n'importe quoi. ñun dëkk baaxul ñun dañuy day jox kër gu yaatu nga tabax ci sa benn batiment bu yam li ci des yaatu. am une grande cour. nga mën xar yi fële nag yi fële bëy yi. donc tout ça c' est important. il faut que nit ñi ni ñuy dëkkee. qu'on laisse de l' Dakar amatu sax garab. pour jëmbat problème garab sax amatu fii. donc loolu finalement que di béton ndox bi fu mu jëm que di béton ça pose problème il faut de plus en ñu xool nan la ñuy lotissement yi Dakar. ñu bàyyi de l' espace dans les grandes villes européennes y a des normes. alors tam gouvernement moo ko war a saytu. bu baax euh, superviser mbir là je tout à fait d' accord ça veut donc désormais il faut que l' central ne les collectivités territoriales yiy def lotissement désormais ku respecté tout normes yi. sa lotissement do do ko ça. donc loolu je tout à fait d' uh-huh. parce que euh, lotissement au moins au moins les pour cent. na nekk euh, de de de de l'habitat na nekk surface non bâtie. mais day day ba day dem ba influer. Mm-hmm. ci circulation yi ci ci tëli yi. Mm-hmm. parce que tëli dañuy xat. tëli dañuy xat bu fekkoon ni par exemple liy xew démb si euh, certains artères dañ doon dem sur trente quarante mètres soixante dix mètres quelquefois. mu mu yaatu. mu yaatu donc certains artères lu mu xat xat boo boo fa évacuer nit ñi euh, peut-être bu ñu waroon def cinq heures de temps six heures de temps ci yoon bi xëy na bu ñu defee deux heures deux heures et de temps ñu leb donc loolu aussi il faut que de plus en plus surtout nag vers la banlieue c'est pas encore trop tard nañu revoir nos façons de de de, de lotisser yokk mbedd yi euh, mais aussi xëy na état def ay ay effort gunge collectivités territoriales ah. mais am na collectivités territoriales yoo xam ne aussi du ñu comme Réfane du ñu comme. ci loolu ci naka moyen am na ñu moyen parce que quand une collectivité territoriale te dit que euh, je peux faire deux milliards mais deux milliards ah. am na quand de des travaux yu ñu ci mën a def waaw parce que tamit bu fekkee deux milliards la une collectivité territoriale boo xam ne dafa war a mën a def dépensé ci dans la banlieue li ma gis nii. ci ah. sama xel bu gàtt ah. Euh, deux cent wala trois cent millions ci fonctionnement. ça suffit largement parce que fonctionnement bu du personnel bi la. Euh, carburant yu demee noonu fourniture de bureau ainsi de suite sur plus de deux milliards de recettes. mais si on prend deux cent trois cent quatre cent millions s'ils veulent pour le fonctionnement. mais un milliard six cent millions war na mën quand même defar yenn canalisation yi defar yenn travaux d'assainissement yi. mais ñoom dañ naan la seen compétence waaw ñoom seen compétence dañ naan la cani curage caniveau la ak mu taw ñu indi pomp voilà. non xam nga man quelquefois la notion de compétence ah. quelquefois man dama koy respecter tant que j'ai pas les moyens mais quand j'ai les moyens de le faire. da nga koy da nga koy non non parce que tamit. du am dara lu ñëw arrêté la bu commune bu ci jógoon ne damay defar sama voirie yi mais voirie day ak da ko ba leen koy accompagner par kii système de drainage des eaux système d' assainissement uh-huh. ça fait partie de la voirie loolu lay te chaque collectivité territoriale am na voirie boo xam ne c' est à sa charge uh-huh. route nationale bi la AGEROUTE yore le ministère des infrastructures yore à travers l'AGEROUTE mais le reste ça c' est dévolu aux collectivités territoriales uh-huh. donc su ma yoree tey un milliard cinq année dina drainer tuuti vers le réseau de l'ONAS beneen année ma def noonu ainsi suite mais si on veut. toog rek di xaar rek di xaar di xaar di xaar ONAS. quelquefois euh, ça ça peut poser problème ensuite ay aw askan bu la. man je pense que lépp luy seen jafe-jafe rek lépp luy seen rek war nga ca mën a jéem wala boo gisee ku cee jéem nga donte du sa compétence nga ànd ci ak moom jéem le ko parce que sa askan en fin de compte ñoom la ñoom ngay soulager. te ñi jiit ñi ñi daje fal la nag te gënoo leen lépp lu leen di jàmmal war na nekk war nga ci xar sa tànku tubéy war nga ci xar sa tànku tubéy ba tax na yéen itam ca diwaanu Refane googule Diourbel infrastructure yoonu tali yàgg ngeen ko ñaxtu ba léegi dafa mel ni mbir mi mi ngi commencé soppi aw xar kanam. waaw alhamdulilah soppi na aw xar bu baax. parce que wax dëgg yàlla télé bi nga xam ne dañ ko doon jàmbat ñun waa Refane wax dëgg yàlla yàlla saafara na ko terewul nag dañuy bëgg a waat ñun. mais bon boo xoolee aussi dans le département. quand même def na ay télé yoo xam ne soxla nañu ko. mais quand même boobu quand même. priorité la woon waaw boobu priorité la woon. maintenant des na ndàngal ma ndondol ficelle. boobu aussi c'est vraiment une priorité. des na ndàngal Lambaye c' est une priorité. mais aussi des na Baba Garage Kër Samba Kane Touba Toul. Uh-huh. Bambey Baba Garage Ngaye Mexe. yooyu aussi c' est vraiment des. ah monsieur le maire li des bari na ah. na mais yooyu nag aussi boo bari boo jëlee le cas de Ndangal ma Ndondol Fissel. boobu quand même le FERA avait avait financé. mais marché bi kii entreprise bu ko gagné woon dafa ñëwul. boobu aussi il faut ñu kii ko c' comme c' est comme Ndangal ma euh, Ndarep. Réfane vraiment wu Toubatoul. Ah. boobu aussi l' entreprise bi ku gagné woon dafa ñëwul. donc finalement on est obligé de. relancer le marché. voilà maintenant Baba Garage. Euh, Kër Samba Kane Toubatoul ak euh, Bambey Baba Garage Ngaye Mekhe boobu quand même euh, le ministre des infrastructures monsieur Mansour Faye lancé na les travaux boobu moom pour très bientôt ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Ah. waaw donc muy loo xam ne aussi vraiment il faut ñu. ñu waaw soulagement bu rëy rëy. soulagement mais il faut aussi avancer ñun bu ñu defee benn affaire dañu koy bàyyi ci ginnaaw dox dem parce que tamit li ñu bëgg mooy benn euh, maanaam pour déplacer wu dans le département de Bambey pour mhm. déplacer wu dans le Bawol mu nekk lu yomb te ñu ngi ci euh, pourquoi pas Réfane Lambaye yéen a ngi ciy joxe waaw ñu ngi ñu ngi négocier ñu ngi ñu xool buntu yu ñu ko yu ñu ko defaree pourquoi pas Réfane sorti autoroute Ila Touba bi nekk Touba Toul bi nekk diggante Touba Toul la Xombal yooyu aussi c'est c'est des choses yoo xam ne nga xam ne boo génnatee autoroute bi doo dem ba Xombal jaar Kaba jaar jëlaat R3 bi loolu bu guddi bi nga xam ne boo jógee rek rek boo génnee autoroute bi rek da ngay piqué directement Réfane ça ne fait pas plus de sept huit kilomètres. monsieur li ngay wax nii est-ce que. yéen ñi nekk ci axe boobu taxawal benn intercommunalité. benn boo xam ne mun na nekk benn plaidoirie bu fort boo xam ne fu ngeen teg ci table dina leen wuyu. merci en fait ñu ngi ci xalaat. Euh, je pense que ça ne fait pas quatre ou cinq jours. Euh, j'ai échangé avec le maire de Khombol monsieur Maguette Boye ma koy nuyu. au passage di nuyu aussi mon frère euh, le maire de Touba Toul Chamed <laughs> personnel en fait. ñoom je département de Bambey. mais dama dama takkaloo ak ñooñu. Touba Toul Ndiéyène Sirax Xombal c'est c'est mes voisins immédiats. waaw maintenant de l'autre côté de Bambey maintenant y a Ndangalma Ngogom Lambaye Kër Samba Kane ñooñu aussi c'est des voisins immédiats donc man damay damay wax ak ñële di wax ak ñii. vraiment mais euh, je pense que euh, dinañu dinañu dem vers une eh, déjà ñu ngi ci ah ñu ngi demlante di waxtaan ci yenn affaires yi mais je pense que bientôt dañ koy formaliser je pense que daal y forcément intercommunalité boo xam dañ ko formaliser entre Réfane Touba Toul Ndiéyène Sirakh Xombol et peut-être pourquoi pas Réfane Ndangalma Ngogom ah Lambaye beneen zone bi en tout cas en train de réfléchir pour que ñu formaliser ko carrément di liggéey ci projet yoo xam ne. parce que opportunité la tey oh, comme on l'a vu agropole bi nga xam ni lancé nañ ko ci diwaanu Malicounda. Mhm. ay yenn communes la yi nga xam ne ñoo nekk dajale seen am-am. Mhm. lancer seen appel d'offre outil ay partenaires projet mhm. xam nga yooyu itam bañ a xaar état suqali sa bopp itam lu am solo la. te ñun surtout ñun nga xam ne vraiment. toutes les opportunités s'offrent la bas à nous parce que ñun dañu nekk ci zone boo xam ne Dakar nous sommes à mi-chemin entre Dakar et les plus grandes villes du Sénégal. Uh-huh. ci koom lu muy génne ci koom loin ah. désormais même Louga n'est pas loin parce que à part de Toubatoul tu fais 10 minutes pour aller à Tivaouane et continuer sur Louga donc ñun je pense que euh, zone Malicounda boobu ñun je pense que ñoo leen sax war a opportunité donc li ngay wax ni mooy solution bi daje entre collectivité territoriale réfléchir ensemble mettre nos moyens en commun pour vraiment lancer de grands projets s'ouvrir aux partenaire et je pense que bu ñu ko defee ce sera au grand bénéfice de nos de tey loolu lay wax benn kii man dama la ne ci produire mille poulet ginnaaw jendeer bu ko dugalee ci otoom ci produire mille poulet à Réfane wala a Touba Toul a à Lambaye dugal ci otoom ñu départ ki jë ki jógee ki jógee Bawol ki jógee Lambaye wala Réfane wala Touba moo koy njëkk place de l'indépendance donc ça veut que ñun ñoo ëpp opportunité maintenant pour voilà effectivement voilà ñoo ñoo ñoo ko fiy njëkk ah, ensuite li nga mën a am foofu ci espace désormais nous sommes dans cette zone-là, avec le boom démographique, hein, l'habitat qui, qui, qui comme ça sur bu bari lool euh, amato fo bay amatoo fo def poulailler amatoo fo def usine et ainsi de suite ñun ñu ko am nag vraiment je pense que non seulement am nañ ko nous sommes accessibles ah nous pouvons ravitailler Dakar nous pouvons ravitailler Touba Diourbel nous pouvons ravitailler même Saint-Louis pourquoi pas donc c'est des opportunités yoo xam ne fenn soreetul fenn soreetul et je pense que le foncier est plus accessible chez nous. Uh-huh. hein, que à Dakar que même à Malicounda foofu aussi désormais le boom démographique ak waaw mu nga fay mu nga fay dem très bien donc ce qui veut dire que ñooñu lu ñu man ah. ñun vraiment war nañu man lu ko ëpp parce que ñoo leen ëpp opportunité ah, yaa ngi ciy def ay jéego itam lu jëm ci wàllum paj mi eh, gis nañ li itam projet yi nga sumb mu ngi fa ambulance fa dafa mel ni commune bi itam mi ngi comme ni ngeen koy waxee yéen mi ngi mi ngi ci yoonu émergence daal Ndefane waaw comme ni ma koy faral di wax rek euh, paj dafa am solo te ki dëkk euh, réew maaw wala mu dëkk Ndarab wala mu dëkk Refaat c'est un citoyen sénégalais il n'est pas moins citoyen que ki dëkk Médina ki dëkk Médina gënu ko nekk citoyen sénégalais ki dëkk Almadi gënu ko nekk citoyen sénégalais kon sañ-sañ bi mu am pour faju faj mu dëppook jamono sañ-sañ boobu la ki dëkk Refaat am pour faju faj bu dëppook jamono moo tax lu ñu mën ñu ko ciy def en terme d'ambulance en terme euh, euh, de construction waaw construire nañu ay ay ay maternité construire nañu ay logement sage-femme ainsi de suite mais aujourd'hui lii lii la priorité ñu bëgg ci ànd te ñu ànd ci ak ASAD benn association boo xam dafa dafa ëmb doomi commune bi yëpp ak même ku ñu bokkul ci commune bi ah suñu grand frère Daouda Sarr Diouf jiite ko lii euh, su lii suñu tey mooy tabax le centre de santé de Réfane waaw les travaux ont démarré mais le centre de santé existe déjà sur le papier parce que la l'arrêté ki crée le centre de santé a été déjà signé par le ministre de la santé donc fi mu ne urgence la vraiment pour que construction boobu yegg ah. et je rappelle que c'est le deuxième centre de santé du bi amoon mu nekk dans la commune de Bambey. Le deuxième de santé qui mu mooy nekk refaar donc loolu vraiment c'est c'est c'est une c'est un honneur lu muy lu am solo te Refane en avait besoin parce que ñun dañu ruqee yi nga xam ne yeneen communes yi bi ñu am bu ñu jógee daw dem Bambey rapidement ñun mënuñu am loolu donc vraiment c'était une urgence ñu dimbalee ñu loolu te vraiment sant yàlla dinañ ci gën a jublu pour que liggéey bi gaaw yegg mais même avant liggéey bi yegg nous mairie nous commune nous sommes en de voir nan ñuy remercier ko sant ko bu ak euh, le médecin chef de département dem toog ci yéen dëkk yi ñu baree ko ñu baree koy def moom euh, moom nee na bu ñu paree rek dinañu parce que c'est le lui c'est le médecin chef de région donc c'est le c'est le patron de la région en matière de santé ak euh, le médecin chef de département vraiment seen diligence ak seen accompagnement pare nañ le médecin chef de région pare na pour que ñun quand on mettra en place les conditions mu déjà mu affecté ñu un personnel comme ça fii ci les locaux ci ce qui existe déjà saa bu construction bi pare ñu déménager foofu donc nous sommes en train de travailler pour mettre am voilà wutal ko ay sa salle de d'hospitalisation logement du médecin chef ak tout ce qu'il faut euh, cabine dentaire tout ça nous sommes en train de travailler pour que conditions yi réunir comme ça ñu mën a euh, démarrer les les les les activités du centre de santé en attendant construction yu pare. en attendant construction xam nga léegi lañ jógee euh, ci li nga xam ne moo jëm ci examen CFEE BFM e euh, ba ci sax baccalauréat au niveau de Réfane certainement am nga ci taux bi am nga ci satisfaction résultat yi commune ba ndax li nga doon dugal ci koppar pour xale yi nangu jàng ndax fay nañ bor bi. waaw sant yàlla. vraiment fay nañ bor bi ma profité ci d'ailleurs euh, vraiment féliciter les élèves euh, féliciter les parents aussi parce que parent yi ci lañ bu ñu leen ñoom ñooy def le suivi à la maison c'est extrêmement important mais féliciter vraiment euh, d'abord pour l'élémentaire les directeurs d'école et leurs équipes pédagogiques ah. les maîtres de CM2 vraiment féliciter le CODEC monsieur Faye mooy le collectif des directeurs d'école féliciter aussi l'inspecteur départemental ak vraiment toute son équipe parce que ils ont fait au CFE on a eu de très bons résultats sant yàlla et euh, vraiment ces cinq six dernières années ah. Réfane est toujours en tête par rapport ak voilà ci ci ci examen yu demee noonu mais aussi féliciter les principaux de collège ci résultat BFM bi ak vraiment tout le corps professoral yi nekk ci collège yooyu. Ah. muy bu Réfane muy bu Ndarep muy bu Réumao ils ont fait d'excellents résultats au BFM. là aussi c'est c'est exceptionnel. Ah. féliciter aussi euh, le proviseur du lycée de Réfane madame le proviseur une dame très brave vraiment très très engagée. Ah. boo xam ne moom aussi au-delà des activités pédagogiques il y a d'autres activités culturelles socioculturelles. lu muy yoo xam ne daf ko daf koy dugal désormais ci biir lycée bi. Euh, euh, vraiment ce surtout cette année y a eu beaucoup d'activités yoo xam ne c'est euh, daf lay dafay impacter même la vie sociale des élèves si ajoute maintenant à l'arrivée au résultat au bac vraiment c'est c'est c'est c'est c'est excellent ah. donc vraiment ñu féliciter ñooñu ñëpp féliciter élèves yi mais aussi ñaax leen pour que excellence boobu bañate wàcc. pour que boobaa yéen yéen ci ñëw taxaw tam jàppaat si. non ñun dañ ci jàpp ñun moom tant que nous la ba bas incha allah rabi éducation santé suñu priorité lay doon peut-être yeneen priorité mën nay changer ah. mais éducation santé kooku moom c'est des priorités di dinañ def tout ba ku bëgg a faju faju dañ bëgg def tout ba ku bëgg a jàng jàng mais aussi ma félicité Al yi foofu li ma gis ñuy def si excellent c'est-à-dire ñoom dañuy initier seen élèves yi de sorte que dañuy def bac le bac organisé par al azhar réussir des le bac organisé par l' état réussir donc finalement le, les élèves de al azhar dañuy am double diplôme un bac délivré par al azhar uh -huh. un bac délivré par l'office du bac ça veut dire que voilà ça veut dire que formation bi ñuy joxe foofu c' une formation excellente ça veut formation bien adaptée parce que nga xam ne moom ci al azhar bi la nekk. mais day dem euh, présenter wu te avec toujours d' excellents résultats. oui vraiment ma ma féliciter leen encourager leen. Uh-huh. Euh, xamal leen ne noonu la rek mbir moom boo ko boo ci nekkee dañ ciy nekk ba ñëpp xam ne ci lii nga nekk. non non non non incha allah non non non <laughs> non on met tout euh, au plus tard en début octobre. Uh-huh. dañ leen di jox li ñu leen war a jox. d' ailleurs cette année j'ai dit au au secrétaire municipal. Uh-huh. que déjà nañu ko commencé nga xam ne fournitures scolaires yi. dama bëgg balaa le 15 septembre le 20 septembre mu disponible nga xam ne au jour de la rentrée directeur bu ne chef d'établissement bu ne dina jël li mu war a am li école am war a am ci subvention ci ci ci fourniture. ngeen mën a jëmmal ubbi tey jàng tey. très bien bu boobaa ñun suñu daan day bëgg a wàcc ci ubbi tey jàng tey. waaw monsieur le maire ci euh, wàllum ponk cadre de vie xëy na yaa ngi ci yaa am nga ci ay projet yi nga xam ne yaa ngi koy xalaat environnement bi surtout tey fi ñu toll ak ñu ngi ci jamonoy nawet ku ne nawet instant bi ne euh, tàggat yaram ak ainsi de est-ce que yaa ngi xalaat acteurs yi. waaw ñoo ngi part du cadre de vie mooy l'éclairage public vraiment dañ ko parce que dans le cas on a constaté que de plus en plus éclairage public bi dans dans la commune dafay manqué surtout ci vers yi nga xam ne ay ay ay sañcaan la ñu walla sax mu nekk entretien kii bi vraiment boobu moom on va on va dérouler un vaste programme pour euh, defaraat éclairage public dans toute la commune pour que vraiment dëkk bi gën a leer euh, mais bon tàggat yaram bi effectivement boobu sax tàggat yaram ndox bi duñ koy tudd jafe-jafe yi dafay am ci yenn euh, dëkk dëkkaan yi c'est pas le cas à Réfane non c'est pas le cas à Réfane par contre par contre daaw non daaw ba de daaw bële daaw géej daaw géej voilà quand même je pense que terrain am na fa benn jour xaw yoo xam ne leen sus ils étaient obligés de suspendre parce que dafa amoon ndox foofu euh, mais bon euh, je pense que loolu c'est réglé parce que après yónni naa fa benn gradaire ba mu ba mu refaire donc on va les accompagner mieux euh, bon nawet bi dugg na peut-être ce n'est plus possible parce que foofu bu kii rek nit ñi dañuy ji seen tool yi nous allons construire deux terrains municipaux yeneen on avait un seul terrain municipal clôturé mhm. nous allons nous allons clôturer deux autres bu nawet bi jàllee benn bi avec les moyens de de la mairie mais accompagné par le PNDL que je salue au passage mon ami et frère Mamadou Thiaw mooy secrétaire exécutif du PNDL di maire Tasset sama sama xarit la donc moom moo ñu jàppale foofu pour que ñu am fonds yoo xam ne dinañu mën a permettre ñu construire euh, terrain municipal clôturé en direct que désormais ñoom aussi zone boobu ñu commencé am allons en faire de même donc ça veut dire que ñun vraiment les jeunes ñu ngi xalaat bu baax maintenant léegi ay xalaat la ee parce que damay bañ ñu ne moo ko diggee waaw dañu bëgg sax à côté de ces terrains là ñu fexe ba def fa ay salle de spectacle yu baax pour les jeunes ay yoo xam ne peut-être dina mën a am dina mën a accueillir des manifestations culturelles ah pour les jeunes loo xam ne day indi rentabilité mairie loo xam ne indi rentabilité bi xam naa rentabilité bi aussi du du waa ci yéen mais rentabilité bi beneen bi bi ëpp solo mooy li muy def ci jeunes yi ça aussi c'est une rentabilité qu'on ne peut pas moné moné monétariser mënuñu ko estimer sous forme de monnaie mais c'est encore beaucoup plus important que des millions nit di am foo xam ne dañ fay a xamante épanouiru yenn ad ardeur yi dina tax mhm. seen activités yi def yëpp de nekk des activités saines mhm. parce que aussi la jeunesse c'est comme ça soit vous leur offrez euh, l'opportunité de faire des activités saines ou bien alors ñu dem def leneen ah waaw donc loolu c'est plus important mhm. que que que les recettes monétaires yi nga xam ne dañ ko ciy tiré monsieur le maire tàbbi ci euh, waxtaan politique parce que yow fii lañ toogoon nga ne yow yaay coordonnateur département départemental léegi bu APR ci diwaanu Bambey euh, Bambey googu député yi nga xam ne tegoon nañ ko fa pour yéen bennoo dafa mel ni dañ leen fa gagné euh, lu waral déroute boobu laata ñuy ñëw ci résultat national yi. waaw euh, jërëjëf waaw effectivement lam la waxoon ca laa nekk ba léegi. parce que tamit ñun mënuñu seetaan président de la république Macky Sall ak li mu def ci réew mi ñuy xool ay nit di ko yàqal fa nu dëkk muy Bambey. te dem nañu ba xam ne bu ñu jëlut suñu responsabilité yàqu bi lay gën a màgg parce que mën nañu nekk ay nit nekk ne ñoom ñoo ñoo nekkal président euh, faalewuñu askan wi yëguñu askan wi duñu leen dégg duñu leen gis boole ci quelque fois même les rares occasions yi leen nit ñuy gis ñu ñuy wane yenn arrogance yi yenn suffisance yi kooku baaxul ci président de la république te ñun dañu engagé wu à côté du président par conviction ce n'est ni par amitié encore moins par opportunisme président de la suñu xarit dañu gëm gis-gisam ñu ñoo ànd ci ak moom donc bàyyi bàyyi yi nag yu bëri kon du ñu nangu ku koy yàqal Bambey donte xaritam nga boo ko xaritoo nga dem xaritoo moom en privé mais bu ñu gisee ne da koy yàqal Bambey mais dañuy jóg jël suñu responsable da nga jàpp ni Mor Ngom day yàqal président Macky Sall Bambey absolument la preuve mooy euh, on a été battu parce que pour la population moom la ñu gis ne mooy incarne le pouvoir à Bambey alors que c'est quelqu'un boo xam ne il le gobe plus donc il nous sanctionne bu ñu bëggee teg gestion parti bi ak gestion pouvoir dans le département de yi ci ay dóor ay lobby ay ay ay ay copinage résultat bi la ñuy indi lan la choix bi moo baaxul wala. benn non je vais te dire des constats après nga tirer conclusion euh, bu fekkee ni ki ñu tànn dañ ko dóor commune am te mu nekk fa maire nekkoon député ñu tànn ko ne ko yaay tête de liste départementale pour nga remplir biir commune am mënu ko gagné mu perte. mooy kan ah tête de liste ba la après boo demee nga xool <laughs> nga xool liste bi liste Bambey tête de bi <laughs> ah. aywa boobu moo leen fa gañewaat de. yeewi askan wi moo ñu gagné. parce que boo faut pas réduire yeewi askan wi à ay Mbodj. y a d'autres jeunes ñu am jom. ñu bokk ci yeewi askan wi. et je trouve même que c'est plutôt ces jeunes là qui ont fait la différence. moom Pape Diop. Ah, waaw Pape il paraît que il a appuyé Aïda Mbodj dans la commune mais incontestablement la commune de Bambey moom euh, c'est Aïda y a des jeunes qui émergent <laughs> yoo xam ne ils ont été très décisifs dans dans la victoire de Yewwi Askan Wi maintenant donc ñun suñu déjà suñu tête de liste mënul sax gagné commune am on l'a battu dans sa commune ensuite nga dem beneen commune ministre bi dëkk fa président conseil départemental dëkk fa une petite commune deux fortes personnalités normalement il perdent leur bureau de vote ils perdent leur village ils perdent leur commune c'est un problème constat boobu lay def. tire les conclusions. ça veut dire que certainement ñooñu demuñu ci nit ñi faalewuñu nit ñi fonk ñu nit ñi li war interface bi ñu war a jouer diggante président de la république ak askan wi defuñu ko. mais nit ñi aussi même ba nit ñi kenn jëndu leen kenn moomu leen surtout Bawol boo leen yëgee ñu yëg la boo leen faalewut faalewuñu la dara jaralul leen. ñuy daw ci ku leen yëgut dara jarul leen ko te ku leen yëgut boo demee élection gis ko c'est évident c'est évident donc euh, peut-être ça leur apprendra ñu wàññi arrogance bi gën ubbeeku xam ne li ñu li ñu doon nit ñee président de la république ba mu def leen loolu ñoom président daf ma wax lu am solo bi ma mujjee gisee ak moom mu ne ma sama gars yi dama leen wax toujours borom mbubb yu gàtt yi na ngeen leen fonk di wax askan wi parce que li li ngeen li li ngeen nekk nii man maa leen nome ngeen nekk ko te man fi ma nekk ba di leen nome ñoom ñoo ma fi teg kon kay askan wi yooyu patron Macky Sall Macky Sall bi ñu seen patron ñoom ba tax ñuy fuuy yëkkati mbaam askan wi patron ñooñu ñooy xeeb ñooy patron président Macky Sall président Macky Sall ne leen dimbali leen mu ngeen joxal ma ñuy cër defuñu ko voilà les résultats et enfin peut-être man je présume. Mhm. que pour l'essentiel du Sénégal partout où nous avons perdu nañu xoolaat bu baax. ña fa toogal président Macky Sall. nan lañu nan lañu comporté woo ak askan wi. est-ce que yëg nañu askan wi est-ce faale nañu askan wi. dañu ci bari seen commune yu ñu gañee ba ñu demee écart bi bu wàññeekuwul ñenn yi dañ leen ah, effectivement effectivement. parce que ah, euh, xam nga euh, ñu ci bëri xam nga la moo leen sauvé sax ci élection locale le les les listes plurielles nga dem xam nga boo demee dans une commune fekk fa huit listes mais le maire sortant il passe parce que mën na am vingt cinq pour cent vingt huit pour cent mhm. soixante dix pour cent yi ci des bu ko huit bu ko sept li Cissé-Lo kii am quinze pour cent kii am seize pour cent kii am huit pour cent kii am voilà tu t'en sors avec vingt cinq vingt six trente pour cent maximum tu deviens maire mais bi ñu demee élection bi hmm. nga xam ne pratiquement c'était Yewwi Wallu face à Benno donc finalement c'est c'est comme si c'est deux listes donc yow 30 pour cent yi nga amoon si même si tu les conserves tu ne pas face à 70 pour cent yéen ne donc euh, voilà mais en fin de compte. Mhm. man je trouve que un bon ministre juddoo ci dëkk bi yaru ci dëkk bi màggee ci dëkk bi amay moyen war a mën a amal nit ñi njariñ boo leen amaloon njariñ mhm. yenn ñi du la dal si dëkk léegi waaw léegi euh, assemblée nationale majorité absolue bi ngeen bëggoon amu amoo leen ko bien vrai que jiitu ngeen waaye ab écart bu ndaw bu ñu doon wax ku dëkk coude à coude la léegi naka ngeen nar a doxalee da ngeen nar a jël fële roof ngeen seen politique mën a dem wala opposition bi bu leen ëppalee est-ce que du bloqué. Euh, waaw je pense que. jeu d'alliance dañ nekk. maintenant maintenant bu fekkee ni bu fekkee ni askan wi tax ñuy liggéey opposition bi bu fekkee ñoom tamit askan wi tax ñuy liggéey. il doit pas jouer pour avoir une majorité. askan opposition waaw. Ah, ñoom dañuy bëgg tam yenn. non mais mais loolu jouer loolu c'est détourner c'est dévoyer la volonté du peuple. la volonté mooy benn bokk yaakaar moo ëppale ah, yeewu askan moo ci toog mm-hmm. a nekk actuellement ci politique parce que lu bari changé na léegi mooy li ma lay wax nii cest bu fekkee dañuy def alliance ah. dañu waroon wax dès le départ te njëlbeen ne ñun ñoo ànd ak xam nga ne bu ñu noon ñun ñoo ànd bu ñu kii dañuy dañuy dañuy euh, contre gouvernement kon amaana am nañu voté wàllu duñ ko voté parce que dañu naan man bëgguma wàllu ànd ak yeewi parce que nawlawuma leen am na ñoo xam ne xëy na voté lañu yeewi am na ñoo xam ne bu ñu voté lañu yeewi xëy na amaana boobaa duñu voté yeewi parce que dañu naan man bëgguma yeewi ànd ak wàllu parce que nawlawuma leen hmm. ainsi de suite donc aujourd'hui la volonté du peuple mooy Benno moo jiitu il doit gouverner opposition kon ne opposé loolu am solo la. député dootul tardé. ñu fal la député rek. ngay voilà jël sa salaire te sa kër kooku moom dootul am. surtout yéen si il faut aussi avouer que. tardé ci député ci opposition la ëppee. ah bëri waaw surtout nag ñi nga xam ne ñoo leen doon wax ay tête de l'opposition. ay ténor ay genre Ousmane Sonko yi. ñaata yoon la Ousmane Sonko tardé opposition tardé assemblée nationale. voilà donc yooyu nañ ko baax mënoo dem ci askan askan wi laaj seen baat ba ñu fal la te doo dem siéger. toog sa kër toog sa kër ça veut dire que ñooñu tout simplement dañu demoon ci askan wi pour ñu joxaat leen ay salaire mais pas pour ñu gàddul leen seen kàddu di leen laajal li ñu soxla donc vraiment il faut que plus de respect des politiques envers les populations. waaw nga boo doon xelal njiitu réew mi tey nga bokk ci kawam ñetteelu mandat bi tey lii est-ce du benn xar kanam bu ñu leen jox mooy li ngeen ñiy bëgg a dugal suñu bopp mu ñetteelu mandat ñoom d'accord ñu ci de. waaw ñetteelu mandat je pense que léegi président wax euh, dama koy bàyyi nag mu vraiment mu mu mu. joxe primeur mu joxe primeur bi. mais euh, niiw yi niiw non ba mu ba mu waxoon. ci laay toog. mais mais je pense que euh, dina euh, je pense bien. parce que tamit on est à quelques encablures des élections présidentielles. te élection présidentielle pour nga préparer ko dafa soxla benn lisibilité benn visibilité. wala voilà. il faut devant nga xool nga gis c'est plusieurs mois uh-huh. pour nga mën ko préparer donc je pense que ça va plus tarder parce que uh-huh. élection présidentielle aussi lu sérieux la euh, et 2024 ñun dañ ko war a gagner donc il faut ñu teel a ñun benn bokk yaakaar ñun benn bokk yaakaar ak Macky ah Macky ci benn bokk yaakaar la bokk bu nee oui ci la bokk bu nee non ci la bokk même bu bëggul lu présenté wu ci benn bokk yaakaar la bokk il faut léegi ñu ngi xaar gouvernement bien vrai que euh, gisaguñ décret wala arrêté bi wane nii euh, ñi nga xam ne jëwriñ yi euh, liggéey bi mais xel mën na jàpp ni remaniement lañ jëm. ah oui forcément remaniement lañ jëm d' autant plus que y' une réforme bu jàll temps yële. avec la la la. <laughs> d' urgence <laughs> <laughs> xam nga. foofu aussi sénégalais yi dañu xam ne gérer un état c'est pas facile. xam nga mooy important ba muy def lu réforme d'urgence. Mm-hmm. pour lui il était urgent. mais xëy na am na lu ko dab. loo xam ne xamoo ko xamuma ko. c'est-à-dire voilà quelquefois nos gouvernants la mm-hmm. nañ leen di yërëm. même ñun ñun même ñun maire petit mi nga xam ne li ngay gérer ba réyul topp. yenn saa yi da am pas-pas jóg bu def benn affaire. ne suba ma def ko. tey ci ngoon si am nu la dab. nga xam ne loolu mënul nekk. te pourtant da bëgg mm-hmm. da nga amoon yéene ne bu subaa def nangam. lu mënul nekk boobu yenn saa yi day nekk raison yoo xam ne mënoo wër fépp di ko wax mais da lay wóor ne mënul nekk suba. mais changement moom. non mais forcément non forcément il faut que ñu mettre en place d'abord remettre en place la primature ensuite former un nouveau nouveau gouvernement ensuite à la fin de chaque élection forcément il a des leçons à tirer. te kii ci tirer bu baax. ah oui ah oui. forcément des leçons. Ah parce que y a une reconfiguration politique. e ça fait respirer aussi le parti ça fait respirer la coalition Benno Bokk Yaakaar ah. est-ce que duñ dem après ñu ci bari bëgg yëkkati loxo. ah oui ku nekk am nga droit yëkkati loxo. c'est normal en politique il faut que. man dama ne un cadre un cadre buy def politique te amul ambition du ma ne sax un cadre hein. doomu aadama tout court buy def politique te amul ambition kooku amul. dana pas tout le monde a son a ses ambitions donc li ci des mooy le président de la République lui-même euh, je pense que il il va satisfaire tout le monde. Mais dans certaines situations, il faut redresser. Et pour redresser, il faut changer la lessive. carrément foofu fóot ba mu set. débarrasser vraiment de tout ce qui ne va pas. entourage dañuy wax. ah oui c'est ça ah mais entourage kay quand proche du président de la République. ñëpp nangu ne ce sont proches. se permet se permet de perdre sa commune. une petite commune. si bu fekkoon ni sax da di une commune boo xam ne dafa rëy. ñu ne xëy na daanu dajul suuf. parce que communes yi aussi quelquefois c'est difficile de les gérer koñ bële quartier bële quartier bële quartier bële conflit yu fële mere nañ jiw te doo mën a dem fépp parce que commune une commune par exemple de de de de six cent mille sept cent mille habitants un million d'habitants ces communes c'est difficile à gérer mais une commune qui ne fait pas quarante mille habitants quand on se permet de le perdre ça veut dire que entourage boobu baaxul ça ne va pas il faut s'en débarrasser il faut s'en débarrasser si en tout cas si on va avancer mhm. maintenant soit on s'en débarrasse et on avance soit on conserve et on continue la descente aux enfers. am na solo Djibril Thiaw moo nekkoon suñu gan maire bu Refane ñu ngi lay di la gërëm bu baax a baax waxtaan bi neex na suñ ko ñu continuer de. mënoon a continuer mais vraiment ma remercier leen encore une fois masawaat vraiment euh, waa les Dakarois ci coono bi ñuy dund diggante démb ak tey vraiment métti na daal. mais yàlla mooy dogal. nañu ko nangu loolu aussi la ngëm di jariñ. ngëm yàlla mën a nangu dogal lay jariñ kon yàlla euh, ñu ñaax vraiment les autorités lu ñu man rek pour euh, yekkati souffrance su sénégalais yi lu ñu mën rek pour woyofal li Dakar waaye dund fan yi surtout ci courant bi vraiment lu ñu man pour que du bëri lu muy couper c'est vrai que coupure bi ma kii ils ont expliqué que si yenn seen kii moo inondé waaw te ndox ak courant ça ne fait pas bon ménage donc euh, voilà en tout cas ma santaan ñëpp nuyuwaat vraiment waa Réfane waa Bambey waa Diourbel waa Bawol di ko sant di ko gërëm moom Djibril Thiaw bu baax a baax mooy maire bu Réfane mbokk yi jox leen di jeexajee ba dimanche beneen invité fii ci rajo Rewmi FM gërëm Léopold Mendy moom mi nekkoon ci xarala